maanaam ñëpp nekk ci seen jàmm bu faju di mbëggee lekk di lekk mais boo demee ci santaan ci àll bi mais jàppal ñu euh, Mountakha Bassirou Mbacké bu yegsee ministre de l'intérieur dañuy xaar daal di door cérémonie officielle aɗona kon mouri sara mbo addi sino jambari sini touba excellé rakki sohna woni moustapha bachir di excellé mon nag doon jimbo doon sëriñ touba waxoon naa ko sànq sëriñ touba am na lenn ci njabootam yoo xam ne jot ñoo doon xalifa cheikh madoul bachir ca la bokk moo bind bi ne noonu baaxil xadim di téere boo xamante ne bii doo bëgg xam histoire sëriñ touba moom waaye sëriñ touba bi topp na Serigne Abdou Samad Serigne Touba Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir ne egg si nga xamante ne bii mooy fi nga xamante ne war a amee cérémonie bi ci seen bi kon sëñ Arouna ñu bàyyi xel rek rek moom it feeñal yéene bi ci dugg si nga xamante ne bii ki nga xamante ne mooy déglu kàddoom bi ki nga xamante ne mooy déglu yoonu bu incha allah ñu ko ko ci kon ndax loolu ko baax jërëjëf yow Oustaz comme ni nga ko waxee noonu la Serigne Bass Abdou Khadir moo jiitu sëñ Mountakha euh, Bassirou Mbacké euh, ak colom gi ak kanam gu yaañ gi ndeysaan comme ni koy faral di waxee mu ngi takk ay loolu di ñuul euh, comme ni ak mbaxanaam mi nga ne daanaka xam nañ ko ci télévision bi moom sëñ Mountakha Mbacké xalifa général pour murid gis nga moom waaye Cheikh Mamadou Mountakha moom dafa ñëw rek daanaka buñ ko valoriser tey jii gis nga écran yëpp daanaka loolu nga ci seet bi wax na mu lool mu yàgg la lool ñu xamee ko lool ci boppam bi konkoor gi ndeysaan euh, very ñuul mu takk ko euh, moom sëñ Mountakha Mbacké euh, Bassirou ñu noonu dugg avec sëñ Bass mi nga xam mooy porte-parole ci kanam nag ñu fas dégg ngir mu jibal kàddu yi nga xam ko sëñ ko nag ci gouvernement bi jëmale ko ko ci umma islamique bi yëpp ndax wax nañ ko ndaje ci wàllu jàmm dana ci wàllu booloo ci wàllu diine ji dana jëm ci wàllu mbokkoo ak nekk nekk nu askan wi loolu yëpp dafa nekk nekk lu am am am am solo boo xam ni waaw waaw waaw xam nga ajuma ñu ci wax yi ndax kon lii mooy wax dëgg yàlla yëpp si Touba moom xaw ma lu ñu koy waa aju. waaw loolu moom dëgg la xam bàyyi ngeen aju boo ñëwee Touba li ma teg boo nee marché Ocass da ngay jël dootu jël. jiite li nga xam ne après mu jëmee la waaw dëgg la loolu moom dëgg la. waaw boo fa ñëwee jour boo xam dara xew. dugg marché Ocass maanaam maanaam après midi bi lépp foofu maanaam maanaam ñoom fexe nañ ba ñun Dakar dimanche mooy suñu firi Touba moom fexe nañ ba imposé fii maanaam aju am na loo xam boo ko soxlaa da ngay xaar mën nga am chance après juma fii di waaye mën nga am chance sama dëgg la mi ngi noonu kon di dalal sëñ Mountakha mi ngi noonu toog euh, lii dafa war a rek xëy na kilifa yëpp ñëw nañ daqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi يا جملة الخلق اشهدوا لليوم فيه يحوس المجرمون اللوم بأني الدارين عبد الله خديم عبده بن عبد الله الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أو قاطنا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أو قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم عليه صلى بتسليم على عليه أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي أكرمني بالسر المخفي من قاد خطيه إلى الكرسي قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا بسم الله الحمد لله إن ولي الله وما توفيه إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki télé télévision Mafatihul yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare ci cérémonie officielle bi nga xamante ne moom la ñuy waajal nii sëriñ bi agsi na Cheikh Mouhamadou Mountakha Al Bachir ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko ci kanamu njaboot gi ba yéene yi nga xamante ne am na ko suñu borom meeku kàttan gu mu ko àggalee fu mu nekk nii Cheikh Sidi Mokhtar mooy wax noonu naa dafa lim li nga xamante ne mooy délégation officielle yi. xam ne incha allah di ñaan yàlla defal ñu si tawfeex bu baax ak teesir ci barke Borom Tuubaa kon incha allah ñu demaat rabbi wastamlaku kulla albilaadi wa taxaw wa aktaru fiha alfasaada wa baxaw kalla sayaclamuuna summa qad jalla alam yaraw alam yaraw an alladi bana sama binaauhu bi xasadin lan yuhdama safiha man araada an yuxfida ma rafaahu lilfawqi rafiu sama wallahi la yutfiu nuura allahi aadaauhu bilmakri wal afwahi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bala may tàmbali damay ñaan listu délégation yi nga xam ne ñoo fi teewal seeni réew te am ku ko jël ci man sànq mu andi ko ma man koo tudd sëriñ bi gannaaw bi ñu la nuyoo ziyaare la nuyu kilifa yi nuyu gan ñi dafa am nitu yàlla koo xam ne dafa laxasaayo woon ngir yëkkati diine lislaam laxasaayo ngir rokkas sampub sunu borom am ñu taxaw ne ko doo ko fi defe jàpp ko génne ko réew mi wax ne suñu ko génne su yàggee àll ñu fàtte ko fàtte lim doon wax ak limu andi woon kooke ñu bëggoon fàtte ba tax ñu génne woon ko réew mi yàlla fay na ko tontul na ko tontu yu bari bi sub tey bii tontu la ci ñi nga xam ne dañoo bëggoon ñu fàtte ko mu bëgg yëkkati diine bëgg rokkas samp bu sunu borom ñu ne ko du fi amee yàlla tontul na ko tontu yu bari waa wa waaye bisub masalikul jinaan ndakaaru tontu la tontu la woo xam ne seeni pexe sottiwul muy ndamul lislaam di sagub Sénégal di bàkku Cheikh Ahmad Bamba nga àndoon ak say kilifa laxasaayu doon seen jëwriñ doon seen ndaw ànd kook ñoom waaye sunu borom defal la tawfiq ba liggéey ba sottee ci say loxo lislaam yépp sant ci yàlla gërëm la ci ñoo ngi ñaan yàlla sunu boroom lépp loo tàmbali yàlla na nga ko àggale sànq nag laata ngay ñëw dañoo xam ne waxtu yi dafa xat ndax ajuma la te kilifa diine yi ne fi sawet xam nañ ne yow ak ñoom su maxtaar mi muxtaar mi xasee tàbbi dootu mën a toog moo tax ñu njëkkante woon lim déléga délégation yëpp waaye Serigne Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo yor sa kàddu ñun dañuy ubbi rek mu wax ma ne na nga leen tudd ci kanam Serigne bi kon danaa ci tudd li xaj ci waxtu wi lu ci xajul ñu jëm koo mottali waa kër maam Alxaaji Malick si teew nañu sëñ Mansour moo leen jiite. Ndiassane teew nañu sëñ Abdourahmane Kounta moo doon jiite Canaba euh, teew nañu sëriñ Cheikh Tidiane Seck moo doon jiite Alhaji Omar Foutiyu njabootam teew nañu sëriñ Cheikh Tidiane Tall ak sëriñ Omar Ba ñoo doon jiite maam Alhaji Ahmad Baro teew nañu sëriñ Daam ma toog moo doon jiite Medina Baye teew nañu Sida Arabi Niass bi teew na jiite leen na Niassène imam Mouhamad Arabi Niass mi ngi nii teew ci sa kanam laayeen sa doom Sina Issa Laay def na na mu daan def teew na waa Ibadu Rahman suñu Cheikh Tidiane moo leen jiite waa Ndeer suñu Mouhamad Jullit Kunta ku xam na digganteem ak Touba teew na jaamal teew nañu Alxaaji Ousmane Cissé jiite leen piir teew nañu suñ Mansour jiite leen ak Serigne Maodo ndànk teew nañu sëñ Aliou Muxtaar Kunta jiite leen askaay sëriñ Yaxya Guèye waa kër sëñ Abbas sëñ Abdoulaye Sall waa Taslima alxaaji Xalifa Jaabi waa Bamba Modi sëriñ Mouhamadou Sall ma nga ne toog waa Guyat sëriñ Moustapha Haydar waa Pete Warak sëriñ Jibril Diagne mbooloom imaam yi ak xutabaa yi imaam Ahmad Dame Ndiaye toog njabootu doomi soxna yi sëriñ Habibu Saaxo jiite leen waa Diigaan sëriñ Ibrahima Sow sëriñ Sow jiite leen waa AIS sëriñ Babacar Cissé jiite leen ñu ànd ak sa doom sëriñ Maam Cheikh daare alquran yi teew nañu ci imaam Adama Seck waa kër Cheikh Mouhamad Nabi Guèye sëñ Mouhamad Camara jiite leen waa Koyli Alpha sëñ Moustapha ba jiite leen waa Gat Ardo sëñ Sidi Hamad ba jiite leen waa Ngouraan sëñ Maxtaar Seck jiite leen waa kër Almaami Maba Jaxu Ba sëñ Abdou ba jiite leen waa kër Maam Thierno Kandji sëñ Alhaji Kandji jiite leen fondation Xaali Amar Fall Alhaji Malick Fall jiite leen Rumde Thierno Ousmane Haya Sow jiite leen kër Socé Euh, sëriñ Ibrahima Sakho jiite leen waa kër Alhaji Mbacke Tandiang sëriñ Baye Niass Tandiang jiite leen grand sëriñ de Dakar Alhaji Sangone Diagne ndey ji réew di ko sonn ca bis bisub Masalik ku ci sonn la moom Alhaji Sangone Diagne lew na kaneen sëriñ Mansour Kane moo leen jiite institut islamique docteur Thierno jiite leen euh, Mbalaxe sëriñ Aliou Dia moo jiite Euh, daaray kokke sëñ Ahmad Mokhtar Lo jiite leen waa kër maam Maska ca Gambi sëriñ Mouhamad Tahir ka jiite leen waa kër Alhaaj Tidiane ñang ca Ndar sëriñ Ibrahima ñang jiite leen waa maam Masamba Thiam ku xam na digganteem ak maam Maram al Mourchid Ahmad Iyane Thiam di sa xar di sa rak jiite leen Kédougou imam sëriñ Yoro Mar leen Wuro Madiyu rakki xalifa muy Cheikh Alfahim Ba maa Jimbira Kébémer di njaboot gu mag Cheikh Sadbu ak Cheikh Talib Boye leen waa Fulaadu ca Casamance sëñ Mouhamadou Lamine Cissé jiite leen waa kër maam Alhaji Rawaan Ngom sëñ Ngom jiite leen waa kër Alhaji Omar Dramé sëñ Ibrahim Dramé jiite leen waa ahlullahi ndand sëñ Moustapha Dramé jiite leen waa kër Tafsir Omar Sall sëñ maam Omar Sall jiite leen njabootu maam Makhtar Kala sëñ Makhtar Kala sëtam ak sëriñ Aliou ak sëñ Jim Ousmane jiite leen mbooloom imaam yi nekk saint imaam Cheikh Tidiane Fall jiite leen tafsir Mor Ndiour ca Thiès imaam Mouhamad Seck Ndiour jiite leen waa kër Alhaji Ahmad Dem Sokone sëñ Abdoulaye Dem jiite leen mbooloom imaam yi nekk Pikine Alhaji Malick Niang Dieng leen al muhajirun wal ansar ca Canada Serigne Malick Top jiite leen euh, Djibouti am na délégation bu fu soxna Suat Momin Bahadjoun jiite jiite ko ak soxna Hibu Abdi Omar Soumal am na délégation bu fa bàyyi ko Mouhamad Omar Saïd moo ko jiite Turquie Al Husseini Mouhamad Adjan di kilifa jiite ko France docteur Ifraq Karim jiite ko Ukraine Seydi Ilias Omar jiite ko di imam Italie Frayel Paola di membre Daayatul Ansar nga xam ne ay italien képp ñoo ko séq yu nekk ay taalibe Cheikh Ahmad Bamba Tunis docteur Barhouni euh, jiite délégation ba Misra Seyid Oussama Mahmoud Maghrib moom Maroc niñ ko niñ ko baax a defee sahibul jalala almalik Mouhamadun Sadis yabal na délégation bu mag di di réassital oustaz Hassan Al-Hazouzi ak juróomi nit te xam ngeen ne ambassadeur Gabon euh, ambassadeur Maroc teew na mooy doyen ambassadeur yi nekk ci Sénégal Gambie président Adama Barrow yabal na délégation ci njiitul Moussa Dramé Ibrahim ak Ibrahim Ndoye ak Alhaji Dembo Bodian imam Thierno Ka wax naa ko euh, bi nga xam ne mooy imam grande mosquée bu Banjul teew na cheikh Qaribullah Nasir Kibar Derul Qadri bi ci Nigeria jàppal délégation Côte d'Ivoire Oustaz Bamba Moussa euh, doon taalibi Cheikh Ahmad Bamba ñu tuddee ko Cheikh Ahmad Bamba teew na ànd ak mbooloo Mauritanie li mën naa leen sànq ay kilifay diine ak njaboot yoo xam ne dañoo amoon kóllëre ak sëriñ bi teew nañu xam ngeen ne barki démb rek euh, président euh, wuldu Cheikh Mouhamad Al Ghazwani yabal na ministre bi yore wàllu euh, l'islam ak njàngaleem cosaan teewoon na ànd ak mbooloo mu takku ba saafoonte ak yow ca kër ga Pakistan tam am na délégation bu fa bàyyi ko teew ci màggal gi Brésil am na ay professeurs yu fa bàyyi ko teew ci màggal gi Inde ñoom seen avion moo ñëwul ci waxtoom moo tax euh, agsi wuñu waaye waajoon nañ Mali Thierno Aboubacar euh, Baro mi ngi xam ne moo fa nekkal al majlisul ala al islami euh, teew na ak Chérif Abdoul Qadir Haydar ca Guinée Conakry teewal na fa njabootu Chérif Fanta Madi mi nga xam ne moo moo suñ mbokk yi nga xam ne chia lañ ci Sénégal moo leen jiite teew na ànd ak mbooloo mu bare li fi teew nag ci ay ambassadeur sànq laa leen tudd Euh, euh, liste bi dañ koo jël ci man waaye ñaar fukki ambassadeur ñoo fi teew limoon naa leen waaye sëñ Bachir dafa waxoon ne naa leen tuddaat ci sa kanam ba nga xam ne seeni réew bàyyi nañ la xel waaye euh, dafa am ku jël ci man kayit bi te xamatuma kan kan la waaye waaye daal ñaar fukki ambassadeur teew nañ ci barab bi lii daal ci tënk mooy da nga xam ne moom lañ doon jottali waaye ni ma ko waxee woon waxtu wi dafa xat te day ajuma te kilifa diine yi ne ci wetu sëñ bi euh, bu muxtaar mi tàbbee rek mook sëriñ bi ñoom ak sëriñ bi dootuñu mën a toog waaw Cherif mi nga xam ne moo jiite chia yi nekk senegal moom itam teew na docteur Ahmad Khalifa Niass mi nga xam ne xaaritu sëriñ bi la di rakkam moom itam euh, teew na mooy Ahmad Khalifa Niass wax naa ko Mouhamad Ali Aydar di kilifa ak ahlul bayt moom itam teew na ci bis bi ànd ak Bassirou Sarr ancien ministre di taalibu Cheikh Mouhamadou Bachir ñoom itam teew nañu ci bis bi kon damay jox rek kàddu gi ministre